boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa saxaabatihi wa man ihtada bi hadyihim ila yawmi ddin ixwata al iman wal iraada assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen ñi teew ci barab bi yépp rawatina kilifa yi noo ngi yëkkati nuyoo ak siyaara bu mag jëme ko ci yéen di leen ndokkeel itam ci bis ak jataay bu mag bi nga xam ne moo ñu fi dajale te nu ci fàttaliku ku mag ku bokkan ci góor yàlla yi laxasaay woon ànd ak Seexul Xadiim nekk jàmbaar ju ràññiku ci lislaam waaye ci biir kër Seexul Xadiim mu di sëriñ Masamba Kanni Bousso ñu war waxtaane nag comme ni ko sëriñ bi waxee léegi tomb boo xam ne jamono laaj na rawatina nag génération bi nga xam ne mooy jiil al muasir jiilul jadid ci jamono ji ji ñu tollu te moo di yitte ju kawe waaye jël nag sëriñ ba Samba Kan mi ay taxawaayam ay jëfam ab liggéeyam def ko nag muy namoo sëj muy màndarga walla misaal ci ku ame jikko walla ku ame yitte ju kawe nan nga war a doxe ci sa diine ak sa pinc ak lan moo war a doon sa taxawaay ci biir loolu loola nag euh, comme ni ko sëriñ bi ubbee loolu lañu yonent bi sallallahu alayhi wa jàngal ci moo war a nekk sabab ak ay ñuy waxtaane góor yàlla gu fi jaaran ba jàll ñu di ko fàttaliku ak a waxtaane gannaawam muy ni ko waxe laxat kaana fii xasasihim ibra li ulil albaab waaye maa kaana hadiisan yuftara walakin tasdiqa lasi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay wa udan wa rahma li xawmin yuminuuna aye boobu dafa nekk aye bu am solo ci jamono yee nag am ci baat bu ñëw boo xam ne suñ benn nijaay e, indi ko muy ma ne ko di vocabulaire la boo xam ne danañ ko dugal ci biir bamba ji mu di sëriñ Moustapha bu sëriñ Afia bi ñuy waxtaanee ca semaine euh, weer yee tell ci sëriñ Afiya te sant moom ma war a caa def waxtaan damaa deman ci moom di muraajaa ak laablu ak wérlu yenn xissa yu ñu askanele ca sëriñ Afiya bi ñu demee nag ba àgg ci benn xissa am kenn ci ñi rekkan ca jataay ba bi ñu waxee ba àggal mu am num ko nettilee waaye am fob ba mu ca àggee suñu soine ko déet lool moom ci safal-safal yi la bokk <laughs> ne ma ne ma déet xaadim mu naa ah, mu ne loolu moom bul ko bul bind loolu ci safal-safal yi la bokk ni ma xanaa xamoo ne eh, tànk yu metti yii nuy dal ak yëfi fan yi yëpp safal-safal yi ñuy def ci togg yi moo ko ci indiwaay buñ yemanteel lañ baax woon a togg mu ne ma bamba jiitam lu baree bari ci sunu histoire safal-safal yi <laughs> saf-safal yi moo ko yàq ma ne ko ah de day alxuraan ko wax maa kaana hadiisan yuftaraa walakin tasdiqal la si bayna yeddi hadiisan yuftaraa nag mooy safal-safal mooy bol dolli ci lu ca bëggun ngir bëgg lu neex nit waaye góor yàlla yi li ñu liggéeyal yàlla nettali ko doy na sëkk xarbaax doy na sëkk wàccuwaay doy na sëkk kéemaan doy na sëkk sëkk sëppitam lus di damoo kon loolu moo tax euh, fa tabaarakallaahu comme ni nga ko ubbee noonu rekk la ukku la naqsu alayki min anbaai rusul maa nu sabbitu bi i fu aadaka wa jaaka fi asi alxaq wa mawisa wa dikra lil muminin fu nekk rek yàlla jàngale na fa niñ war a waxtaani góor yàlla yi ak lañ ca war a jëlee mu mel ni kon ah, danañu barkeelu rek tàmbali ci xamle ki ñuy war a waxtaane tey muy sëriñ Massamba Kanni e, ndax fàttali moom alquran moo ko santaane wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minina ndax xëy na sax ci jataay yi fii jaar yëpp tey nit ñi mokkal nañ ko ci waaye nag buñ ci jaaree ak barkeelu rekk lay doon ñu xam ne sëriñ Masamba Kan bi Bousso mooy góor yàlla googu nga xam ne ñaar yu tedd te màgg ñoo ko meññi muy sëriñ Bousso bi mu amatu Bousso ak soxna Kanni Mbakke mu ganee àdduna ci naawel 1878 xam ngeen ne imaam Maba Jaxu bi nga xamee ne wawatina ji aadam jooju góor yàlla yi mu bokkal pas-pas yépp ci goxi Sénégal rawatina ci Kajoor ak bawal ak ci Jolof ak Saalum gëm dëkk daf leen a woo ñu ñëw ànd ak moom xeex noonu yàlla yi ci la mag ñu bari gàddaaye bàyyi ko fi nekkan ci Bawol wala ci Jolof wala ci Kajoor dem fekki ko foofa sunu maam nag Mouhamadou Bousso ak Mame Mor Anta Saly bokkan ci ñooñu bi jihaad ji jàllee comme ni nga xamee ne Mamor Anta Sëdi mi ngi installé woon Poroxaan sëriñ maam mu Amadou Bousso it mi ngi installe woon ci naawel gi nga xam ne moom it ci promesse su Poroxaan la nekk sorewul ak Poroxaan moom itam soxna kon ñaari way jur yooyu soxna kan nii sëñ mu Amadou Bousso xam ngeen ne moom ak euh, maam soxna jaaratullahi ñoo bokk lépp waaye soxna kan ni itam sëriñ Mor Jee mbakk mi ko miy way juróom sëriñ Ibrahima Awa Ñang moom maam maaram moo ko waaye way juróom jigéen it di soxna Aysa Balla moom itam maam Balla Aysa mooy way juróom kon ñu gis ne sëñ Masamba kan mi ci genn wet gi doomu nijaay la ci Seexal Xadiim waaye ci wetu way juróom bu jigéen nag jarbaat la ci Seexal Xadiim ñaari yoon ñu duppee ko nag euh, góor yàlla gu mag goo xam ne moo jàngal sëñ Mbàkke Mor Anta Sëli waaye moo jàngal itam sëriñ mu amadu bu sa mii muy sëriñ kokki Masamba ant Ceebo li ñu duppee ma Masamba Mbàkke ci wàllu njàngamit wax nañ ne way juram moo ko njëkk a dalal mu barkeelu ca gannaaw bi mu jébbal ko magam sëñ Masamba Faati waaye gannaaw ba nag waajal gi ñu koy waajal te danañ ca dellu siwaat tax ñu jël ko nag yóbbu ko ci la dara maan ca sëriñ cumbuleen Mor Yaasin Silla foofa la àggalee alxuraanam laq fay ngërëmam ngërëmal ki ko doon jàngal ba mu fa jógee nag dellusiwaat ci way juram mu dalalaat ko xam-xam gannaaw bi mu jébbal ko magam sëriñ Mbàkke Buso mu toog fa ab diir jàng fa lu am solo waaye gannaaw bi nag ci ndigalal Cheikh al ak way juram mu bàyyi ko fa nag dem ci fóore ju mag ju mag ñépp taamu woon muy sëriñ Mor Galaay Jaw ca Njàmbur foofee la jànge ba dajal mboolem fànni xam-xam yi nga xam ne moom lañ baaxoo jàng ak a jàngale ci Sénégal ak dëkki Afrique yi wër Sénégal te lay firnde ja mooy lettre bi mbinu Cheikh al Qadim bi mu noppee daf ko caa xamal ne ko jeexal naa Cheikh al Khalil muy muxtasaru Cheikh al Khalil kon mboolem lu ñuy jàngale ci daara jii kët ak di ko fi jàng jàng naa ko te ñun ñëpp xam dañ dem muxtasaru Cheikhul Xalil mooy muntaha waaye mooy nihaaya ci mboolem daara yi yépp tey mooy téere bi ñuy mujje boo xam ne lu jiitu nga ci cee àgg lépp luy téere ya nekk ci suufam ci wàllu fiq tàmbale ci dax dari ba ca foofa da ko jàng waaye téere ya nekk ca suufam yépp ci wàllu tawxiid da nga ko jàng waaye téere ya nekk ci suufam yépp it ci wàllu luxal arabiya muy naxwu ak sarfu ak balaaxa da ko jàng kon mooy bi nga xam ne moom lañuy bujje ci daara yépp kon wane na ne kon ba mu àggee foofa kon mboolem xeeti fànni xam-xam yépp kon jàng na ko bi loola amee nag ci la fa bàyyi ko kon ci ndigalul sëriñ bi dellu siwaat ci way juróom way juróom nag nam def ay magam mu def ko ko te mooy jébbal ko Cheikh al ci waxtu woo xam ne sëriñ bi mi ngi e, Mbàkke Bari kon diir la boo xam ne yàggu fa ndax xam nga sëriñ bi yàggul Mbàkke Bari ay weer la fa am nattu bi agsi waaye li muy gàtt gàtt wax nañ leen téere yi sëriñ bi njëkk a taalif muy Mawaahibul Quddus ci wàllu tawhid ak masaalikul naan bi nga xam ne mooy téere bi njëkk juddu ci yoonu murit gannaaw bu sëñ bi defee ixlaanam ba ca Mbàkke Kajoor ci la ko sëñ bi taarif nee ñu yooye sëriñ bi jàngal na ko ko e, bi nga xamee ne nag loolu am na ba sëriñ bi dem ci tukki bi e, ba dellu siwaat xam nga yàgg fii at rek xëy na la fi am ndax 1902 la ñibbisi te 1903 xam nga la gàddaayaat dem gànnaar foofa nag li ñuy waxtaane nag foofa la tàmbalee ndax la jiitu woon lépp tey lañ ca mën a wax mooy ku ñu waajal la ci mu war a am yitte ju kawe ndax fi ko jaarale ndax xam nañ ne ëttu ñi ko meññ ñëpp daara yu ñu doon laxas ci mboolem gox ci àdduna yëpp ñëw di fi jàng waaye bëgg koo teel a tarbiye nag jàngal ko nag nan lañuy ñuy dékkoo immatu rijaal boobu muy yox ca kaw ci wàllu ay coono loolu moo tax mënal naa àggale alxuraanam ci biir kër way juróom ak ci biir ay magam waaye ñu yóbbu ko cumbaleen ndax xam nañu ne sa biir kër yi ñaari way jur yu góor ak yu jigéen boo fa nekkee am na tumuranke goo xam ne doo ca mën a àgg te am na ca loo xam ne ku nekk sa kanam nag ñu war la caa waajal fokk war nañ laa jaarale ci tumuranke kon loolu mooy lay yóbbu ko foofa ba mu dellu see it xam nañ ne lépp lu mu soxla woon ci xam-xam mënoon na koo jànge ci magam sëriñ Mbàkke Buso waaye nag bëggaat koo tarbiyewaat ak joxaat ko jom moo waral ñu yóbbuwaat ko kër Seex Mor Galaay Sëy yi jaw ndax foofa tey mboolem doomi soxna yu bàyyi ko ci ay kër doomi soxna yu bari la fay dajeel kenn ku nekkit am lu fa yëkkati kenn ku nekkit bëgg sa moroom lañ fay wut da la ko ëppalee kon mu nekk course boo xam ne foofa it himmatu rijaal dafay feeñaat ku yaafus sa moroom jiitu la waaye moom mu feeñal fa maanaa loolu muy wax ul wali imma ba lañ fa war a jële lépp mu jële ko waaye loolu lépp nag ci kilifteefu ay kilifaam lañ war waaye nag bi sëriñ bi dellu see nag gànnaar fekk way juram wàcc na ab liggéey fekkit booba am na lu romb ñaar fukki at ak juróom wala lu ko mat sëkk bokk kon nekk mu kallaf nag moo xam ne li des ci nag ak dundam mooy déterminer nag destin mooy fixer ay objectif am mooy xool nag lam bëgg ak fa ba àgg kenn du ko décider la kooku nag moo waral nag mu jël décision ferme bu boppam fekk sayxal xaddiim ca gànnaar yeesal nag jaayante ga jébbalan nañ ko ko waaye nag lii nag ci propre volonté la ko def te mooy yeesal nag ak jaayanteem goo xam ne moom ci volonté boppam la ko def nga gis ne kon foofa la loola tàmbalee mu bind ci xasiida goo xam ne ca biir jaayante ga wane na mustawa bi nga xam ne am na ko ci wàllu xam-xam ak ci wàllu maarifatu billah muy xasiida goo xam ne bi mu ko ubbi ko muslu seytaane tudd sunu borom subhaanahu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne aslamtu lillahi taala sarmadan kulli ma alqadimi summa ahmada lahu wahabtu bilqadimi wa rasul kulli wa ma li gayri i rumtu usul waaye lu jiitu ci loolu sax dama bëgg dañ ci dellu siwaat waaye ñu waxtaane li ñu jéem a taarif lan mooy imatu rijaal ci boppam lan mooy ulluwul ima ci boppam ak nan la ko sëriñ bi jàngalee ñu doog a dellu siwaat sëñ Mbàkke euh, sëñ sëñ sëñ Masamba Kanni ulluwu rijaal euh, euh, maanaam ulluwul imma wala al himma al aaliya góor yàlla yi surtout al mutasawifoon firee nañ ko nu ne waaye ci tënk rek mooy toolu suñu borom subhaanahu bi nga xam ne wër yàlla ya tàmbale ci sa abat rasul ba ñett topp ci seen gannaaw ci sa saali ca lañ doon xëy te kenn ku ci nekk nag la lay may ab cër ak wàccuwaay ci sunu boroom di la may payug ëllëg muy saadatu daaray ni texe ëllëg ak teraangay àdduna kenn ku nekk kemtilaali sa yitte ak sa taxawaay ca tool ba moo la koy may tool la boo xam ne góor yàlla yépp ca la ñu xëy képp ku am wàcc waaye ak ngërëmal yàlla ak a wut sa wut saadatu ni ci biir tool ba nga koy wute kenn ku nekk nag kemtilaali nu sa yitte ak sa taxawaay ak say jëf toll nara la ngay am ca biir tool ba toll léegi nag su ko defee lan mooy ulul ma mooy tool boobu nag loolu ñu wax lépp nekk ne mooy añu tool ba nga bañ koo jombale sa bopp nga bañ koo jombale sa bopp lépp loo xam ne lu ci yitte ak taxawaay da koy maye nga bañ koo jombale sa bopp loolu mooy li jiitu ci ilu ulul imma waaye boo ci noppee nag nga tobbil saw bopp aw sas woo xam ne du yées wenn sas woo xam ne ña la jiitu woon tobbil nañ ko ci seen bopp muy ñaar bu ñetteel ba nag boo noppee nga tànn nag ca biir ña la jiitu woon te bayan seeni sas ba yàlla fayee leen ca lam leen ca fayee nga tànn ca këla ci gën a doy def ko muy sa jëwriñ muy ñett kon yett yooyu mooy mandargaal xolluwul imma léegi nag bu ñu àggee ci sëñ Mbàkke sëñ Masamba Kan xam ndax fii la jaar wala déet Seexal Xadiim nan la xolluwul imma ci biir njàngaleem Seexal Xadiim ak orientation yan la jox ñi la xasaayu ànd ak moom wa imma tarfa kullaha lil xaqi allahu akbar wakil bi isin laa tamil lil xalqi la seexal xadim wax nee na yow mi la xasaayu ànd ak man na nga yëkkati mboolem sa yitte yépp bul ca bàyyi dara jëmale ko ci yàlla te bul sukkandiku ci kenn mbaa lenn ku dul yàlla laa tamil lal xalqi te boo dëgmalee yàlla bul gersu jàll waxaat faneen foo xam ne ah dafay bañ ku jël sa lenn ci sa yitte lee nga jox ko yàlla lee nga jox ko lee lee nga jox ko kee mu ne déedéet wa himma mar wa imma masrafa naha waxut imma gi gi yor daf ko jàmm wal imma masrafa naha lil xaqi xalqi sa itte yépp bu ci lenn jàdd fenn lépp na ko dajale wëlbatiku jëmale sunu borom subhanahu laa tafit lil xalqi te bul geesu mbindeef daal di waxaat ne ah, léegi léegi ñu ñu xam li tax sëñ ma sàmba kan di wax bayitam woowu daal ne wal tarfaxu imamakum li nay li ma naalal kiraamu min rida isil zama da ngeen yëkkati seen itte ba mu kawe tobbil seen bopp aw sas fas yéene la gaa yu baax yi leen jiitu woon aman ngeen bañ koo jombale seen bëpp te def seen yitte ci am ko te muy ngërëmal yàlla bi mu waxee loolu ba noppi nag Seexal Xadim yëmu ca dafa wëlbatiku nag waxaat yi nga xam ne dëgg-dëgg mooy jumtukaay yi nga xam ne wala yóbbal bi nga xam ne borom yitte yu kawe yi moom la ñuy yóbbuloo muy juróomi yóbbul mu wax ne wa jumlatul aadaabi inda al qawmi inxasarat fi xamsatin yaa qawmi ne yóbbal bi nga xam ne borom yitte yu kawe ya yóbbaloo woon nañ ko juróomi yëf la ifrun li urmatin ulwi himmatin wa usni xidmatin wa shukru nimatin wa shukru niamati nee na sàmm ormay sunu borom subhaanahu ja ci lépp loo xam ne lu mu santaane ci ay ndigal lu ñu war a def moo xam lu ñu farataal la moo xam lu ñu sunnaal lu ñu sopp nga laxasaayu fas yéene doo ca bàyyi dara waaye lépp loo xam ne daf koo araamalit wala mu sib ko nga fexe kenn du la ca seen kooku mooy muy bi ci jiit olu imma nekk koo xam ne it sag itte da nga koy yëkkati ba mu kawee te nga fexe ba du laal suuf li suñ mën taxaa fexe ba bañ a jombale sa bopp dara tobbil sa bopp ab aw do aw sas ci biir tool bi waaye nag wa usnu xitma waaye boo ko tobbalee sa bopp nga bay ko mbayin wu rafet man ngaa tobbil sa bopp bay ko ba noppi te mbayin wa du rafet waaye wax sunu xitma nga bay ko mbayin wu rafet wa waaye nag loo ci amit ci loola yàlla faye ci yi ñu waxan nga bañ koo jàppee sa ngóor ak bopp waaye dellowaat lépp ci yàlla mu daal di wax nag waneen bayit woo xam ne buñ àggee ci dunduk ak exemple sëñ Masamba Kan mi danañu ko dégg bu baax a baax te mooy dafa wax ne fa ali himmataka fi umuri dunya wa uxra tuxta bil ujuri jullit bi yàlla daf ko jox ñaari mission ci kaw suuf te mooy taxawaay bi mu war a taxaw ci biir pénc mi en tant que xalifa bi yàlla ci kaw suuf alxuraan ne ko wa anshaakum min al ardi wastaamarakum fii a muy taxawaay bi mu war a taxaw ci pénc mi pour taxaw pénc mi ci lu koy yéwénal waaye taxaw ñi mu nekkal ci pénc bi ak lépp lu pénc mi laaj waaye ak ban nag sukkandiku nag ci fii ci àdduna faggu fi nag lu ko may teraangay ëllëg pour équilibrer loolu nag nit ñi ñetti xaaj lañ ñetti catégorie koo xam ne moom sasu ëllëg boobu muy toolub ëllëg bi la jox priorité muy ñuy tudd ak suhaad nga xam ne dafa gannaawal adduna moom complètement jublu àllaaxira daanaka soxlawut a am ab dëkkuwaay soxlawut a sol mbubb soxlawut a lekk dëkk ci jàkka yi di sol ay sagar lu mu am dañ ko ko sarax mooy ñi ñu tuddee woon ak zuhaad kon dafa abandonné àdduna ak koo xam ne nag contraire bi la def moom it li ëpp ci yitteem yëpp àdduna la ko jox soixante-dix pour cent ci àdduna la ko jox ak koo xam ne nag moo nekk ci digg bi jëfandikoo la Sëriñ Tuubaa waxan wa amal li dunya qadra ma tabqa biha waaye la axir xadrama eh, eh, tam ko sufiya ayu al fatinu waaye àllaaxira it nga jëfal ko kemt la la la nga fay sax muy équilibre boobu buy kenn ku nekk mu ndab ndab la loo xam ne la ca xaj rek def ko ca muy sa àdduna la mu laaj sew nekkin laaj ko la ci mënta ñàkk nga jox ko itte ba mat sëkk waaye nag xam ne àllaaxira mooy tool mooy kër gu ga nga xam ne boo fa boo fa nekkee doo boo fa demee doo fa jóge ba mukk kon nag la sëñ Tuubaa axastu min dunyaaw jaadilil jinaan kon faggul ci biir àdduna ab yóbbal boo xam ne e fa tabaarakallaahu e dana la may saadatu daari saadatu e, saadatul uxrawiyya Cheikh al Xadim ne kon fa ahli immataka fi boo bëggee nag yooyu ñu wax yépp nga jot ci nag defal nii wala tualliqa bi shay'in fi zaman min a naqaisi bi sirin waalan bul nekk koo xam ne ku yàppandi wala ku gaaw a doylu wala koo xam ne da ngay jombale sa bopp lenn loo xam ne ña la jiitu woon ci lu baax dañ koo am déedéet lu ci nekk lu ne seetal la ca gën gën caa baax nga dàkk ko lii la Seexal Xadim wax nañ delluwaat nag suñ bakkikat yi fi ma doon wax bayru jëkk bi lu mu wax aslamtu lillahi taala sarmadan kulli ma alqadimi suma ahmada la oo abtu bil qadimi wa rasul kulli wa ma li xayri i rumtu wusul lu sëñ Tuubaa lu waxal fii wal imma tarfax kull alil aqi la waxal wakkil bi izzin laa tamit lil xalqi sëñ Bakki sëñ sëñ ñëw ne aslamtu lillahi sarmadan kulli xanaa kon wax na li jaar na fi sëñ li sëñ bi waxante kulli ma alqadimi suma ahmada jël naa sama lépp jébbal ko yàlla te desaluma ca dara waaye jël nag ki nga xam ne mooy rasul euh, xadima rasul muy jëwriñi jëwriñam ja moom yàlla def ko nag muy sama jëwriñ man it di sama royukaay di sama njiit loo xam ne ci moom laa laxasaay topp ci moom ngir mu wan ma yoon dellu waxaat ne lilaa ibil qadimi wa rasuli laa xayru laa xayru kulla raxbati usuli waxaat ne lahoo wa abdu bil xadimi wa rasul ku liiwuma li xëyri um usul loola it muy waneen bayitu sëriñ bi ci boppam waaye mu dellu waxaat nag ne allahu kulli wa rasulu lii sabil jadi wasilatil xadim wa nuqul allahu akbar muy mu jaar daf noo jàngal ci biir loolu ci li ma doon wax léegi ci tartib bi mu def ci ngay xam dëgg-dëgg sëriñ Serigne Massamba Kane mi ci wàllu xam-xam ci wàllu maarifatu billaahi ci kaw na sayxal xadiim kilifaam ga doxale digganteem ak boroomam ak yonent bi noonu la doxale Serigne tubaa xam nga ne fu muy wax bu nekk bu ne aslamtu nafsi kum cay teg aslamtu nafsi li rabbil alamin wa sunu borom eh, yonent eh, eh, yonent bi sallallahu mi wa sallam mii kilifaam la cay teg waaye teg te nag alquranul karim miy dalilam bilaay uslimu bilaay uslimu <coughs> <coughs> bilaay amantu wa ci uslimu habdan xadiman la cay daal di teg dellu waxaat ne yonent bi sallallahu alayhi wa mooy ki nga xam ne mooy sama royukaay wa bi kitaabihi wa bil bayti dalil wa xiblatan li xayriha lafsu amin waaye alxuraanul karim mooy lumière bi may bi may bi may niital mooy yàlla lay jiital teg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël alxuraanul karim def ko lumière bi may niitalee sëñ Massamba Kane ni ñëw it wax loolu ala ukulli wa rasululi sabil saadi wasilatil qadimi wa nuqul nuqul mu ne mooy lan wal kitaabu yaa ilahi zaabil xadimi wa nabi yu xaqi dégg nga kon sëñ Masamba Kanni moom itam fi sëriñ ni sëriñ Tubaa jàngalee rek ne képp kuy jaayante ak yàlla noona nga war a def mooy jaaral ci yàlla jox ko ab cëram ba mat sëkk jàll nag ci ki ngay jaayanteel waaye boo noppee nag jël alxuraan bi nga xam ne mooy séerub lumière yéen ñëpp teg ko seen kanam kon loola la doxal foofa waaye bi nga xamee ne doxal na defal na taxawaayam bu am solo boobu ba noppi nag muy jaayante ga kon ca gànnaar e, nekk ak sëriñ bi diir ba nekk gànnaar sëriñ bi di ko tarbiya di ko tarxiya mu jege fa ànd ak moom ca cëyeen sëriñ bi ko tarbiya ak tarxiya waaye muy liggéeyal sëriñ bi itam foofa nag ci diggante boobu ca la bindaate geneen xasida gu yéeme boo xam ne mooy baytul mooy tam fi mu yoxee mantiqat yi kël gis mi lil baaxil xadim fii sunnatil muxtaari bin abdil xadim fas naa yéene sama jëmm ji tàmbalee ci sama làmmiñ wii lépp lu ma ciy wax ak sama kër yi lépp lu ma ciy jëf lépp fas naa dara du ci génn sunu borom subhaanahu wa taala lu ci nekk itam ci yoon wi nga xam ne moom la kim nu booleel muy Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci lay jaar def ko waaye sama tànk fas yéene moom wàcc sunna benn yoon waaye jëwriñam ji di Abdul Xadim itam di jëwriñu jëwriñam moom lay def sama njiit loo xam ne ci moom lay topp fu mu teg tànkam ma teg ma jéem faa teg sama tànk ca la waxee nag ne lii nag tax na ba lépp loo xam ne góor yàlla yi ma jiitu woon aman nañ ko mooy góor yàlla yi ma jiitu woon aman nañ ko ba ci ñi ma jiitu ci seexal xadiim njëkk a jaayante ak moom fas naa yéene fépp fuñ àggan fas naa faa yéene àgg lépp lu ñu aman it maa ngi xamal ne jombalewu ma ko sama bopp tobbil naa sama bopp pour am ko saraftu immati li immati rijaal wa immatul rijaali wa usil jalaal loola nag lan laa cay wut nawaytu bil xadiimi kaw na kulli ibaadatan li maliki zil fadli il fadli mooy fas naa yéene jaar ci sama jëwriñ jii di Seexal Xadiim ak ci biir liggéey bi ma koy liggéeyal ak topp gi ma topp mbooram jubluwaay ba lépp nag mooy nekk jaamu yàlla boo xam ne lépp lu jaamu yàlla gi laaj ci lu ñuy def wala di ko wax danaa ko def bi mu waxee loolu ba noppi nag ca taw it ja comme ak ni sëriñam jàngale Seexul Xadiim mu ne waaye lii lépp nag yéene la ak bëgg la ko boo ma ci dimbalewut yaw yàlla mën naa caa bañ a jot mën naa faa bañ a àgg kon nag maa ngi delluwaat ci yow di sàkkul nga dimbale ma ci lii nga xam ne mooy sax fi ma tobil sama bopp ma bay ko ba jot ca añ ba te noon bi nga xam ne ku jóg tobbil sa bopp sas wutal nii mu taxaw jaar sa diggante ak nga bay ko nga mësal ma ca muy seytaane billaahi fii kulli layaadin astain kama bihi a'uuzu min kulli laayin ba mu ca jógee nag mu wax baat bu am solo boo xam ne danañ ci taxaw muy lan muy lan wa baadu qasdi haa una taslimu bi yet bi yet di man sumaatuhu xadim baat la boo xam ne maa ngi invité nag borom daara yi yëpp tey ñu taxaw ci tuuti muy baatub jébbulu ndax day baat boo xam ne dafa am cosaan lu rëy am màndarga mu yaatu ci biir bàmba ji ak ci biir tasawuf waaye ñu dem a dem ba ci sunu génération bu mujj bii sama bokki daara yi ñu baree bari di ko daw ba bu ñuy bind sax dañuy moytoo tudd baat bi ne nañ yam rekk ci jaayante mu bàyyi kenn du ko tudd yaar yëf nag moo tax ñuy def loolu muy jàpp ne baat bi xéruk taalibe yu jëkk ya rekk ci seenu jox seen bopp sëñ bi moo waral ñu di ko jëfandikoo bàyyi fa jaayante waaye du lu am cosaan ci bàmba ji baat ba jaayante la woon ñu ne kon nañ dellu ca loola ñenn ñi deen déedéet waaye ñenn ñi beneen ba ca sit mooy ñu jàpp ne baat bi kat dafa jege ak baat bi nga xam ne yàlla sunu borom rek moo ko jagoo te kuy dugg ci islaam te ngay dugge muy aslamtu nafsi kon nag moytandikoo dugg ci li ñuy tuddee shirk na tax nan fi bàyyi baat bi may xamle nag ne yaar yooyu yépp yu dàqu la baat bi baat bu am cosaan la ci tasawuf sore naag lool itam baat bi ñu koy nuraleel muy aslamtu nafsi maanan wa lafzan danañ ci ñëw nan wax bi gën a jege maanaa baat bi nga xam ne yàllaa ko moom kenn suñ caa dugal kenn ci loxal arab yi la lañ koy si lañ koy tëggee baat bi nga xam ne nag mooy màndargaal diggante taalibe ak sëriñam la bi tasdiidil ayni lañ koy tëggee kon bokkuñu baat yi ci maanaa yi itam bokkuñu aslamtu nafsi ji ngay wax ci sa diggante ak sa boroom du aqiiqa majaas la bu nekkee aqiiqa rek nga weddi sa bopp fi nga toog boo jàppee ne waxtu wi nga jàkkarloo ak yàlla naa ko aslamtu nafsi sa bakkan bi daa nekkan ci sa loxo nekkul ci loxol yàlla bi nga ko ko joxee la cee doog a nekk weddi nga sa bopp bakkan bi ba ko yàlla bindee ba bi ngay wax loolu mës na tax taxta xabdatillaah kon li ngay def nu mu tudd i'tiraaf wal qabool lay tekki i'tiraaf wal la aslamtu jooju nekk waaye du aqiqa parce que bu dee aqiqa mooy da ngaa jàpp ne taxsiilu maalam yaxsul la woon te déedéet lii taxsiilul asil la mooy bakkan bi ba ko yàlla bindee ba léegi jógut ci ay loxoom jógut ci kilifteefug yàlla li nga def nag tey mooy i'tiraaf wal qabool mooy nongu loola moo tax ñu tudde la muslim ki ko weddi ñu tudde ko kaafir ki weddi loola waaye yow mi nangu sa nangu gi dolliwul dara ca la yàlla dooran ki weddi itam weddim gi doon toon dara ci la yàlla dooran kon loolu yaakaar naa leer na kenn ñemewut ne aslamtu nafsi mii kat sama bakkan bii kat ba ma ko jox góor yàlla nekkutoon ci kilifteefu yàlla wala nekkutoon ci loxol yàlla ndax kenn yeme na ko wax kon xam nga kon du istil euh, kii istilaax la kon ixtiraaf wal xabool la kon bokkuñu foofu kon leer na noonu léegi nag par contre taslim bii ngay wax nag sàllama yu sàllimu tasliman kooku moom tax taxsiilu maalam suul la woon sa doom ji sama doom ji nga xam ne dafa toll ci jàng ma war koo jàngal waaye am na ngant lu jaar sama diggante ma war koo jàngal nu may def damay ñëw fekk la fële ca mu jàmba ak Seyxul Xadim jébbal la ko physiquement jëmm ji laa jël jébbal la ko xaqiqatan waaye wëlbatiku autorisé la ca jox la ca sañ-sañ ba ma ca aman ci ga sañ koo jubbanti sañ koo jaarale foo bëgg damaa koo summi jox la loola booy aqiqa ba ma ko defagul ndax ndax ndax ndax booba lu am la ah léegi nag man maay def noonu sama doom waaye man mii mu kàllaf nag kenn du ma jébbale man bu ma demee nag ba nga xam ne ma ni daa am lu ma soxla ci sama bopp ci nu ma war a mel ak fu ma war a àgg te mënuma fa àggale sama bopp man maay dem ci ku ma fa mën a àggale ma jébbal ko sama simaamul umóor ngir moo mat ma kooku mooy kon leer kon leer na ne kon loolu ñu ñëw nag ci cosaanal baat bi baat bi téere tasawuf yépp boo demee fekk ko ca façon bu nekk nag fiire nañ ko na bi ci gën a yaatu nag ci nga xam ne téere yi ca ca mille neuf cent ca bi tasawu juddoo ba Cheikh Abdou Khadir Jilaan ba ñépp téere yoo dem fekk ko ca mooy fi ñu koy firee ne ab taalibe ci diggante loxo yi ab sëriñam day mel ni kal mayit bay na yaday raasilihi <laughs> wala déet ah, kon Seexal Xadim firee na ko noonu ca nax ju xadaayat aaj waaye boo demee ci sifaatu saadixal murid am na baneen bu mu ko indee muy salabul ixtiyaar salabul ixtiyaar ah <laughs> kon amatoo amoo amatoo waaye boo demee ci kutubu tasawuf yëpp dañuy leeral loo xam ne ab sew-sew la mooy dañuy wax wuute gi am digganteem ak mubaaya dañoo ne moom moo mën a yóbbaale mubaayaa waaye mubaayaa mënu koo yóbbaale ndax moom min aadaabil mubaayaa wa mus wa lawaasimil mubaayaa moo tax boo demee ci kutubul mutaqaddimoon yi dañ koy tuddee ni ci lawaasimul mubaayaa la doon waaye ku mel ni ki Cheikh Abdou Khadir Isa ci aqaay xani tasawuf moom ci aadaabul mu bàyyi xàll ko tudde istislaam baatu istislaam la jëfandikoo indi ca misaal boo xam ne nag moo gën a jege sax yii dafa wax ne mboole mutasawifoon yu jëkk yi ak mutasawifoon yu mujj ñu wuutew ñu ne sayxul bi taxawaay bi tabib tabibul jusmaan yor mam la yor ci digganteem akub taalibeem ndax mooy tabib médecin bi nga xam ne mooy saafara amraadul xulub nee na ñoom ñëpp loo dëppoo ci nee na nag comme ni ki nga xamee ne boo feebaree da ngay dem jël sa jëmm ji jëbbal ko am médecin ba leen dugal ci néeg bi nga dugg sumil sa tubéy nga sumil sa tubay sumil sa mbubb nga sumil sa mbubb tëddal nga tëdd lum la defloo nga def ko ndax loola mooy tax mu mën a identifier sa jàngoro mën a xam lala dal man laa faj nee na naka noona itam tabibu ruux bii di sayxul murab bii itam fow nag moom it nga taslim sa simaawul umóor ci moom ngir mu mën laa jaaree la fu mu la bëgg a joxe waaye koy ne damay womat ba noppi nga téye nas bam lay womate ndax dana la womat te seexul xadim lu mu wax man talabal wusula lil jalili ah bi an yudaasi ma mutti an am ci foo xam man talabalu sóoralit jalili fal yaxtasim am foo xam ne itam wa baxdu o yasluku in raamal wusoolu àlaa yedday mu kammil kan suloog àlaa yedday mu kammil ba tey mooy istislaam waaye boo cëkkee mu ne yaquudu o bil ilmi ah waaw boo ko joxut sam naf lu mu lay woomate wal ibada moo tax seexal xadim kon ci façon bu baree bari kii na ko boo demee maam alaaji malik si ci ci fàkki atu tulaab moom itam ci aadaabul ko boole Cheikhul Khadim nag bokk moom da ko boole ci mu mubaayaa ak wa aadaabuha lu ko waral xam nga jaayante contrat la boo signé waaye boo ko waxee yem ca képp te la ca topp nag te mooy ki nga jox contrat bi signé ak moom bàyyiwoo ko ak si bopp ndax dana dana dana mën a tasaruf ci yow déedéet moo waral li waral ñu ne bokkut ak mu bàyyi mubaayaa waaye mën naa yóbbaale mubaayaa waaye mubaayaa mënu koo yóbbaale xam nga. man ngaa ñëw ci sayxul murabbi jaayante ak man ngaa ñëw ci sayxul murabbi jaayante ak moom ba noppi dem la jaayante ga laaj ci bàyyee ko sa bopp defoo ko loolu moo tax ñu ne moom moo mën a yóbbaale mu bàyyee a waaye mu bàyyee a mënu koo yóbbaale ndax mën ngaa mu bàyyee a ba noppi te doo istislaam waaye ki istislaam nag moom dafa jaar ci mu bàyyi ba noppi moo tax nag sëriñ Massamba Kane nii gis ngeen ko bi mu defee mu bàyyi ab bee ba noppi lu ca teg wa baddu xasti a una taslimu bi yaddi man sumaatu u xadimu def na jaayante ga na ko seexal xadim jaaye ca aslamtu si jamaa nangam waaye bi mu noppee nag li nga xam ne mooy muxtada yaatu jaayante ga nag te mooy jox boppam nag sëriñ bi bàyyee ko boppam nag fu mu ko jaarloo mu jaar fa mooy la ca topp mooy taslim boobu di kii kon nag baat bi bu am cosaan lool la ci ci eh, ci tasawuf daw jotewut ak mubaayaa jotewut ak baat bee ñuy jox yàlla booba yàllaa ko moom jotewuñu dara du ca bindiin wa du ca maanaama ku mu neex nag ah booy bind boo ragalee ne bu fekkee doo àgg ci détail yu xóot yii te ragal boo yemee ca lee ñu jaawale ko su la neexee nga yem ca waaye nag du tax nga remettre à cause jàpp ne baat la boo xam ne kat mag ñee ko fi indi bëgg a jox bëgg a bëgg a condamné mag ñi déedéet baat bi fi la ko mag ñi fekk muy baat boo xam ne bu am cosaan am signification bu wër a wër mag ñi tudde ko nu ne kon loolu lañ doon leeral foofu loolu sëñ Mbàkke Kanni daal di wax waxam ju am solo ji wabaadu sëñ ma Masamba Kanni waaw du xas li a una taslimu bi yeddi man sumaatu ul qadimu daal commencé nag allahu akbar wax lu solo li wa iman lahul aradi ma waaye lu tax nag ma jox ko sama ndos bii sama ndosu mbir mii ngir mu ma jëmee ci borom asamaan ak suuf rek moo tax mu ne multamisan kawniya abd dalaahi fi sunnatil muxtaari baabilaahi li may sàkk ci moom nag mooy ma nekk jaamu bi yàlla bu màndargaal sama njaam ci sax dakk ci lim santaane moom yàlla waaye nag tënku ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy sunu bunt ci yàlla daan ne nag lanaa li kay faxultu laa ilaha illa allah allahu akbar daan faxultu laa ilaha illa allah ci maqaama bii maa ngi seede ne amul benn buur nag bu ñu war a jaamu kudul yàlla amul benn boo xam ne jaamu ko amal na njariñ kudul yàlla maa ngi seede loolu waaye muhammadun arsalahul ilahu maa ngi seede ne muhammadu rasulullahi mii mooy ndaw li yàlla yónni ci nun lanaa li kay yaddulu naa tamkiina xale i jalla wa ala yaqiina ngir mu teg ni ci yoon wi dëral ñu siraatal mustaqim dëgëral sunu pas-pas ba loolu amee moom yonente bi nee na wa balaxa rasulu maa qad wajaba tablixu min rabbina wa nudiba la ko waral lépp day nee moom def na ko lu yàlla farataal leeral na ko lépp loo xam ne lu mu sopp recommandé ko leeral na ko doog a jeexal mission ne ba mu demee nag ba suñ jàmbaar ji wuutu ko ci liggéey bi déglul suñ Masamba Kanni de nee na wa amilal xadimu nee na moom it lépp loo xam ne lu fi yonent bi bàyyi woon sàmm na ko aar na ko fu yonent bi tegan tànkam fa la ko teg lu yonent bi jëfan jëfal na ko yàlla wa amilal xadimu bi lësi amil bi i nabi yël Moustapha xayru nee na loolu nag moo tax allahu akbar nee na ba ma leeram ga ba ma yàlla defalee tawfiix man ma sàmba kanni ba leeram ga ak mbóotam ma fekk ma fa ma fekk ne ma pëkk pëkk ne ma dëggool wuy ji góor yàlla ga jógal ànd ak kii fi wutu rasulullahi laxasaayu ànd ak moom ci biir liggéey bi ba lu ko ànd nag moom am nga am ci ab cër nee na yàlla defal ma tawfiix ba awma dara lu may xaar damaa jóg waaye bi ma jógee mu yombalal ma nag dem nga benn gàllankoor bu ma am ca dem wuyi ba amul da suma daa nii sirru oo lillaahi maan bi la kaddin wala tanaahi mu ne ba loolu amee nag kon alhamdu wa sirru ma an lillaahi alal xadimi bi rasulillahi loolu nag moo tax kon maa ngi sant yàlla bu baax ci ahmadul xadim mi ma booleel di xam la it nag ne sama jëmm ak képp ku ma am ak lépp lu ma am jóbbal naa ko yàlla wajaxtu kulli wajaxtu kulli wa man bihim tama liye ila maliki ardin wa sama waaye nag maxal xadim waaye nag topp nag ci gannaaw xadim nag rek daa iyan wa naajiyan bijaa'ihi muxaatiban wa raajiya kon wax dëgg yàlla fa tabarakallahu kii wane na waaye nag liy taj siit dëgg-dëgg ñu ñëw nag kon lii ci liy taj siit imma ji ba tey lii lépp ci li ko taj siit la waaye nag xam ngeen ne Seexul Xadim nee naa leen doxaan wa ahli himmataka fi umuri dunya wa uxra sa bil ujooni moo tax nag euh, sëriñ Massamba kan nii e loolu sunu borom waxan muy ñaari kër yi benn bu nekk nga jox ko àqam loolu mooy expliquer bare bi liggéeyukaay yi mu amal wax nañu ne fii ñuy dégg bu mag bi ñu wax lumbel pap bi mu nekk ci projet su Guédé foofu la njëkk a gor lu yaatu lool ànd ak ñi ko Serigne Touba booleel di fa liggéeyal Serigne bi waaye lépp lu fa ñore ci gerte ak dugub nu mu toll dégg ngeen ca xisa ba daa waxaat ne sax benn doomu gerte képp lakk ko ci hmm. lekk ko ci moom ak lakk sama taw bi ñoom laa yemale hmm. lu ci ñor lépp nañ ko jël yët ah, te bàyyi mag yàlla wax nañ ne fii nga xam ne it hmm. fi la isbu tarkiya nekk tool ba agsi woon na fa waaye fii Daaru Njaay nekk it sëriñ Ousmane Ndiaye doomu sëriñ Daaru Assane wax na ne ci tooli sëñ Masamba kan ni la bokkan léegi nag di njabootu suñ daaru Assane njaay bëggee jege bi wétali suñ Mour Moustapha e, la sàkku ci suñ ma sàmba mu baaxee leen loolu lépp ay toolam la woon waaye barab bi ñu nekk nag mooy tool boo xam ne ah xissa bu yéeme la xam nga ba mu jógee ci ñoom sëriñ Saliou moo moo nu nettali bi mu nuy jox rawdu rayaa'iin ne ñoom rawdu rayaa'iin daara ja nekk rawdu rayaa'iin fa lañ leen doon tàggate moom sëriñ Modou Moustapha sëriñ Massamba sëriñ Mor Rokhaya ak moom sëriñ Massamba Kandi mii sëriñ Abdou Dia Douyoolé ak mboolem doomi kilifa yi sëñ Saliou waru ko nettali de li tax mu tudde nu rawdu rayaa'iin ne dañuy ñoo xam ne ña ma fa doon tàggat mooy ñoo xam ne sama liggéey bii waxtu wu ma demee ba wan ko gannaaw ñooy ñi nga xam ne la mu laaj lépp ci wàllu sariya ak aqiqa fu ñu nekk danañ ko fa dugal ñu tàggat leen ci loola biñ noppee ba jóge ca ba ñëw njaareem xam ngeen ne sëñ Massamba Kanni dafa bokk ci mag ñi nga xam ne Sëriñ Tubaa daf leen a tànnan ñu ñëw wettili ko njaareem am fa ay kër waaye mu ne leen nag kenn ku nekk nag na wut ab tool bu muy liggéeyee bu nawet jotee mu dem taxawu donge liggéey bu noor jotee nag mu ñëw wettili si ma fii léegi nag ah xissa bu am solo ngi nii bu ñu jëlee ci ay siqaat yu wóor muy wane baatinub sëriñ bi akub liggéeyam loola moo di bi mu leen di yabal ñoom ñii tey xam nga ne kër gii nga xam ne mooy kër tu gi mooy repère bi kër gii nga xam ne mooy kër Touba gi mooy repère bi sëriñ Cheikh Baba Sylla di way jur ci ñun di doomi sëriñ Mbirina Sill dafa bokkan ci ñi nga xam ne moom ak sëñ Mor Mbàkke doj ak sëñ Modou Xari ak sëñ Modou Habib ak sëñ Mbàkke Kanni rek yi sëriñ Masamba Kanni mii ñoom dañoo amoon tawfiix yi ak ñeneen sëñ Mor Warxa sëñ Moussa Alima Gueye dañoo bokkante ci ñi nga xam ne dañoo amoon tawfiixi sëriñ bi téere yi nga xam ne mooy li mu bind ci biir bi mu nekkee ci géej gi xam nga sëñ bi amutoon secrétaire xam nga kenn laajagut lan moo tax sëriñ bi amutoon secrétaire bi mu nekkee ci biir géej gi lépp lu mu bind moo ko doon bindal boppam ak ni mu toll te pour nga gis ci benn téere képp bu mat sëkk boo xam ne sëñ bi moo ko bind même ci kàggu yu mag yi ndax yomb na ay kayit ngay gis de ma ne ay kayit ngay gis aw fooy wala ñaari fooy wala ay fegg waaye loolu mu bind nag muy nekk ay jimbalang lan moo ko indi ci suñ loxo yi xam nga loolu laaj la boo xam ne escalier la te kenn xoolu ko woon ah, loolu nag ñii ma la wax ñi ma la wax ñoom la sëriñ bi doon def bis benn bu nekk mu jël ay jimbilang jox leen ñu sotti ko bu takkusaane ñu indil ko ko sëñ Cheikh Baba Syll mii nag mook sëñ Mor Mbàkke doj dañ faa nekkan ñu seexale sëñ Mor Mbàkke doj moo ko nettali lii may bëgg a wax da ko ne biñ ñuy yabal ñun ñii ñu ñëw mu ne ko man ak sëriñ ma Masamba Mbàkke sëriñ ma Masamba Kanni sëriñ Fallu ak Cheikh Mouhamadoul Moustapha ne dana ma dafa wax ne Fallilu bu ngeen demee ba ci sama kër ga ca Touba ca koñ ba féete penku ca wetu bëj saalum ga da fa tàmbalee di tari suuratul baqara ba àgg ci aaya fukk ak juróom ñeen juróom-ñeen fukk ja fastajaaba lahum rabbuhum ani laa udiyu amala amilin minkum min zakkarin aw unsa ba àgg ca walillaahi hinda oo uslu sawaab mu ne ko foofee boo àggee foofa fu mu la fekk na nga gas ba sa tikku jara xaj ca nga tufli fa lool yi yéene ci nag diir nga di fa nekk yaa koo fa nekkal li yàlla bëgg lépp na ngeen ca sax li muy bañ lépp ngeen moytandi ko te yàlla ne leen fa defal saadatu daara yi mu nekk nga rëdd ko def ko jàkk nee na daal di wax Muhammadul Mustafa ne ko yow itam ci koñ bi féete penku yow tàmbalee fa boo demee ba jàgg ay ba àgg ci loo foofu yow it na nga def noonu daan ne Masamba Mbàkke mu daa ma ko yow itam foofu Muudu Moustapha ci koñ bi koñ bi féetee bëj gànnaar Muudu Moustapha mu dafa tàmbale jëm penku yow na nga fa tàmbale jëm bëj gànnaar boo fa àggee nga def nii te tudde ko daarul karim ne Masamba Kanni yow nag ceg sawu ba ca ma Masamba ca koñ boobee na nga fa tàmburee tudde ko daaru xadim saw sawub gànnaar bi gis nga ko ay xoolal aaya bi mu leen wax nga xam ne da leen ne kenn ku nekk na na tàmbalee fii ci aaya bi bu àggee ca wallaahu walilaay indoo wala indoo usul maab ji eh, walilaay indoo usul sawaab nee na foofa nag fa la ñu xoolal sirru boobu léegi bi ma ciy def ay enquête mooy serket bi wër Touba juróom-ñaari kilomètre la fii ne boo demee fi kër Touba gi boo ko nattee ba fi suuf si yem waxuma dëkk bi de fa suuf si si mu gor yem ndax kenn ku ci nekk dalaa wax ne la boo defee loolu ba noppi pax moomee na nga ko rëdd def ko néegub yàlla wut ab dëkkuwaay ca sawoom boo noppee nag ngeen wut barabi liggéeyukaay kenn ku nekk nag boo seetee fa sa barabi liggéeyukaay yem hmm. fii ne boo seetee ndindi fa mu digaloo ak Kéré Mbay hmm. juróom-ñaari kilomètre diggam ak ak ak ak ak kër gi ci jubaa ji tindoo di noonu hmm. daaru salaam noonu hmm. saamu Mamor Jaara fa mu diggaloo ak Sëñ Mor Fati noonu daaru da fii boo ko seetee loolu lay doon muy cercle bu njëkk bi juróom-ñaari kilomètre la bi ci tolluwaat juróom-ñaari kilomètre muy muy juróom muy fukki kilomètre ak ñeent yaari juróom ñaari ñeenti cercle ya ca toll tolluwaat muy muy muy mesra Daarul Moxti vingt-huit kilomètres di limu arafi Touba Taïf gëpp ci cëf sawu vingt-huit kilomètres di limu arafi Touba Daaru Salaam Gàlle ak Daaru Rahim kër Sëñ Mor Talla Fall bu ci sew vingt-huit kilomètres diggam ak Touba boo jëlee ci bëcc bëcc saalum ba fa sëñ Basiiru yam fa tool yi sëñ Abdou Akim yam fa la vingt bi yam muy vingt-huit kilomètres yoo xam ne bu dëkk bi doon mag màggit lu màgg-màgg du enclavé dëkk foo xam ne nekkul ci biir autorité yoon bi loolu muy lu yéeme eh, <laughs> loo xam ne eh, mbootum sëriñ bi la léegi nag mu ñëw sanc fi dëkk bi bind ci xasiida gi mu ci bind te ngeen dañ di ko jàng daarul xadiim araf wenn wu nekk mu taalif ci aw bayt da ani rajaa yi li baaxil xadiim karimin mujibin muridal muy xaside gu yéeme goo xam ne wane na ca dëgg-dëgg li taxan sëriñ bi yabal ko fii waaye nag mu nekk koo xam ne ku am xaas lool ci sëriñ bi am na ci loo xam ne sëriñ Thierno Moulay moom a ko nekk xam nga ñëpp dégg nañ bind nañ ko ci téere yi ñu ne dafa bokk ci ñi nga xam ne dafa amal xaas moom ma Masamba Mbàkke ci dégg sëriñ bi lool waaw maa maanaam sëñ sëñ Moulay Bousso moo euh, euh, moo maanaam sëñ Thierno Moulay mooy bëgg a nettali lii may bëgg a wax hmm. dama nekk sëñ Massamba Kanni ak sëñ Massamba Mbacké dañoo amoon xaas lool ci tomb yi sëñ bi daan wax ak waxtaan yi ñu dégg ko lool ba lu ci waay umpule ci mag ña fa toogoon ñoom nga koy laaj ndax tawfiix la leen ci sunu borom subhaanahu wa defal ma wax ne sëñ Thierno Moulay nee na ma hmm. sëñ Moulay nee na ko. sëñ Malaye eh, sëñ eh, Thierno Malaye dafa ma nekk ne xam nga sëñ Malaye bu sa ak eh, sëriñ Maxtaar Bintaloo ak bàyyi sëriñ Sill bu Ndula ak sëñ Mat Lamin léeg-léeg jataay yi sëriñ bi daan toog di tomb tomb yi ñoom la sëñ bi santan ñu di ko ñu nekk Abdoulaye ibnu Abbas Abdoulaye ibnu Omar Abdoulaye ibnu Masoud ñi daan toxal waxtaanu yonent bi ca jataayee ñoom ñii la sëñ bi sàkkan ñuy jël waxtaan yi muy waxtaan sëñ bi nag ne suñ walaay daf ko wax ne ko sëñ bi daraan def nag buñ ko defee mu ne bu bu subaa ci yoor yoon na ngeen ñëw sëñ waxtaan binte ñoom dem gaaral ko lañ waxtaane lañ toxal lu mu ca war a soppi soppi ca waaye mu ne def leen a waxan ne leen su ngeen ñëwee fekk ma fatu wala ngeen am ci lenn loo xam ne kat lu ngeen desee dégg na ngeen dem ca Masamba kat yi lu mu leen ca wax rek noonu la kon loolu wane nag ba tey ëlluwul itte ji nga xam ne moom laa aman ba moo waral waxtu masaawu teew sëñ bi daf koy laaj lan moo ko teq waaye mu doonan koo xam ne itam e, lépp luy ëlluwul imma lu mu laaj lépp da ko doon def xam ngeen ne bu ngeen demee ci uqal bukaawu ci asaabul imma al aaliya yi nga xam ne sëriñ bi daf leen a dafa wax ne seen programme am na lu ñu tudd lawaasimul asra tarixum asratan jaa at lawaasimuha la budda minha li arbaabil iraadaat lawaasimul asra ya nag bu ruqati caa bokk muy àndandoo yoon nawloon teel ñu mat ay àndandoo mooy yoon wi nga jublu nga wut ci ay nawle yoo xam ne naw leen ci pas-pas ak yitte moo tax nga nga nga def leen ay nawle def leen ay àndandoo fasante ak ñoom kóllëre nawle yooyee nag Serigne Touba dafa wax yan melokaan ñoo war a nekk ci moom wa rufqatun wa hiya ixwaanun la um himamun ma al wafaa'i bi sidqin nawle lañ doon yoo xam ne kenn ku ci nekk tool yàlla bii da nga ciy sobbil sa bopp aw sas muy himma ji waaye ma al wafa i waaye am jomi nag bay ko engagement boo jël respecté ko bi siddiqin fil uquwaati bokk giit bu mu nekk ay formalité na ngeen ànd ci dëgg ci di waxante ci dëgg di jëflante ci dëgg moo tax sëñ Massamba Kanni ñooñu ngeen dégg ñu di leen tudd dégg ngeen di gëm maam Cheikh Ibrahima Fall ca leetar ba ba muy dem ndar ba muy dem di seeti sëriñ bi gànnaar te boole ñaari yëf yoo xam ne ulluwul iman moo koy wane sëriñ bi woo na ko fas yéene wute jàdd fenn lu dul dafa dem ci sëriñ bi te mbokk mi mu war a rombin mu dégg ne romb na ko su xamul lan moo tax mu teggi ko loolu mën naa xajamal diggante ba wala mën naa tax ubbil bunt ab yàqkat mu def kon li ak taalibe laaj bañ a jàdd fenn lu dul dafa àgg ci ki ko waaw muy sëriñ bi waaye nag pour bañ bu yàqu-yàqu tax mu bind seex Ibrahima Fall lettre xamal ko ne ko jaar naa fi bul diggandeem loolu waaye ki nu bokk yilif nag moo ma woo te xam naa ne ba la it nii ma def ngay def kon nag lii ma def dana la neex lool xam naa ne waaye nag ma xamal la ne incha allahu danaa la beral sa yoonu bopp te bu ñëwee am na xasiida goo xam ne ata ngi nii ma def ko ci yow ngir di ci naw say taxawaay ak nawloo gu ma la nawloo ak def gu ma la def royukaay ci biir yoonu sëriñ bi loola xam nga lu rëy rëy la mooy saraftu ah kon immati bi immati rijaal muy saf sumu topbil boppam xam ngeen ne noonu it la mbelante ngeen ko ca xisa ba moom it xulluwul ima bam xulluwul ima fa boole mooy ba leen sëñ bi boole moog sëñ Afi ñag ak sëñ Mudu Masamba Jóob te wax leen ne dafa am fu ma leen bëgg a yóbbu fu yàq yëggut njëgg nag mooy jébbal ma seen bopp ba mat sëkk dañ cee téye dara sëñ Masamba moom fa tabaarakallah ba muy jébbalu moom kulli kulleem ya moom wane woon ne téyewu ca dara waaye nag yeesal la ne ba ca des na ngeen fase ak sëñ ma sàmb ca njàmbaar ga moo jël moo nekk seen parko xamal na ko bu njëkk bi moom def nañ ko ba mat sëkk jaay nañ la ko njëg gi joxaat nañ la ko addiya te buñ ko bëgg na xàccit bul nangu ndax jaay nañ la ko ba noppi li ci des nag day loo xam ne moom day koo xam ne nag moom ah yaa nu ci mën a dibbale muy muy àdduna danañ ci def suñ kéemtulaay kattan waaye nag na gàttanu ak sa tawféex sa ndimbal moo loola sëriñ bi ne ko defal dañ la loolu lépp xoolal itte jooju loola moo indi colère gu rëy gi nga xam ne am na ci diggante bi sëriñ falu alxalifa ñu ngi koy nuyu di ko siyaarewaat bu baax a baax suñu wëlëri bu yàgg <laughs> depuis dans les années soixante-dix daanañu ko waxtaane moom ak sëriñ naa buñ mësaa tudd sëriñ daaru fanaay sëñ sëñ Modou Massamba sëñ euh, Modou Badar Diop xam nga soriwuñu ko woon moom Fallou Ndiaye ba sëñ Ndiaye Guédé mbiri na Ndakaaral rekan sëñ Seexu naa nekk Joor waaye waxtu wu leen sëñ Modou Badar gisaa day fàttali lii kóllëre goog yi ba doon ko dundal sax si sunu wayjur sëriñ maam sëñ Tumbuleen bàyyi sëñ Tumbuleen noonu kon laa aman euh, kóllëre ak ñooñ ñëpp kóllëre goog yi la am lañ aman ak Serigne Omar Diop gis ngeen xasiida gu réy ga ca ngane gam ànd ak suñ bàkk bu sa dem mu boole ko ak moom te la taxan suñ bàkk bu sa ànd ak moom yittey suñ Omar Diop suñ bàkk da ko fonkat ba ku kuy borom yitte rek buy dem moom day bëgg a ànd ak moom ba mu demee pour mu wan ko nag sas ko ca aw sas di nga xasiida ga mu def Omar Diop suñ bàkk bu sa def jetti bayit ca ayin ga ak miim ga ak raaga jox sëñ Masamba sàmba ni jóob ca muy jiim ga ak waaw ga ak baaje bu nekk mu def ci aw bëy loola nekk loo xam ne ramzi la ci ci ci ci kóllëre kóllëre googee moo jaar digganteem ak Cheikh Cheikh Ibrahima Diop almasari yu waaye moo jaar it euh, ak suñ Aliou Niang ak suñ Balla moom it defaat na ca lu mel noonu ba mu nga nee suñ Balla Fally te romb dëkk boo xam ne suñ yu dafaa nekk bañ lee dal ko dafa tax bu bindaat ab leetar ne ko nag damaa yendu ak Balla te bëgguma bëgguma ko xaajoo ngan gi comme ni ki nga xam ne bu ma la ganee siit bëgguma laa xaajoo ak kenn waaye nag danaa la wutal sa bisu bopp loolu lépp it di loo xam ne ay lu rafet la e, mu am wàccuwaay bu mag bokk na ci wàccuwaay ba ci gaw mu bokk ci ñi nga xam ne al mubashiruuna bil janna sëñ bi boole na ko ci lim bi nga xam ne nee na sunu borom wan na ko ne e, ci waa àjjana lañ bokk kon muy loo xam ne kon fa tabaarakallaahu ah yitte daal mënta kawe lii ci ay taxawaay ak i jëfam kon nag li ci des nag ah loolu moom dama koy yalwaan yéen waa daara ji yéen a ngi ci nag bu baax a baax ndax ah, conférence bi ngeen defloo sëñ Bakk Diop Xudar ci dundal ndodal mag li wane na ne yéen a ngi ca dajale gi ngeen daje it lim bind ba yónnee ma ci lu baree bari wane na ne waaye nag li ma bëgg ngeen dolli ko ci mooy gise naa ci ay bind yu yéeme yéeme ci mboolem xeeti xam-xam yëpp ci wàll tawhid bu ma sëkk sëkk sëkk sëkk ak aqiqa bu mat sëkk ak talaazum ak takaamul boo xam ne équilibre bi mu équilibré woon sariya ak aqiqa ci ay waxam ak i jëfam ak i mawaaqifam yëpp gis naa ko ci biir xaside yi loolu nag lu ñu war a génn la lu ñu war a génne saraako bu yaatoo yaatoo yaatoo parce que xaside genn bu ci nekk lettre la lettre de mission la boo xam ne yóbbal la ci ab taalibe bi ndax lam war a jox yàlla lépp dana ko jox ba mat sëkk lam war a jox yonent bi mu ko ba mat sëkk li mu war a jox Seexul Xadiim mu jox ko ko ba mat sëkk li mu war a jox ñi mu bokkal di wut yàlla kenn ku nekk mu jox la cër bu mat sëkk loola nag lu yaatu la lu rëy la loo xam ne yitte ju mag féete ko kaw ak barab bii ñu nekk tey kon yàlla nu yàlla tas ci barkeem eh, te jariñu ñu jariñu ab liggéeyam wasalaamaaleykum wa boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo